nga leeral ñi nga xam ne ñoo lay seetaan lan moo tax nga def nii parce que amoon nga tamit benn problème ak administration pénitentiaire bien que keroog yaa ngi doon jaajëfal ci problème boo xam ne papier nga bindoon pour ñu joxal ko sa yaay mu andi la lem ñu gis ko daal koy téye ba affaire yi sa papa daal di def benn déclaration andiwaatal leeral ci loolu tuuti. xam nga nit ki munoo ko gën a xam boppam munul nekk su ma waxee man lii laa daj pour perte trente kilos mu am ñu ma bëggul gëm seen droit la kooku am nañ droit wante ñu may ñu ma bokkaloon cellule xam nañ ñu ngi may dégg parce que même suñu amulee accès internet ñu ngi lire journaux yi ak revue de presse yi lu ma daj ci kaso bi maa xam di ci jaajëfee tamit suma chef de chambre doon gendarme Modou Seck nga xam ne ni moo ma yor euh, juróom benn weer surtout guddi guddi yi parce que lu ñu doon entraînement ci guddi bi ci biir cellule bi euh, dafa bëri woon c'était du sport intense sport intense mooy daanaka euh, nekkatoo di sport pour euh, pour la forme da ngay sport pour leneen sport intense boobu nag moo indi lu mu lii ça veut dire que man toog naa juróom benn weer lekk ma mburu parce que du ma ndékki lem bu ngeen xam ne ni moom laa amoon ci ay problème ak waa administration pénitentiaire lem boobu moo nekkoon ndikki su ma yeewoo damay jël duma lekk du ma naan benn kuddu lem laay jël génn dem sport ñaari waxtu te ñaari waxtu yi benn waxtu bi yëpp dama koy footing te waa administration ñu may dégg parce que kaso bi yëpp ay caméra la donc te man su may daw du ma daw fu ñëpp a nekk donc fu may daw tamit dañ may gis xam nañu donc ñoom ñu may dégg ma leen di gërëm tamit parce que ñoo ma may ma mën a def loolu te même su nekkoon sax ay jour yu nga xam ne ne awma droit am cours ñoom dañ ma doon may pour ma gën a def entraînement su ma paree daw damay def ay étirement ak yu mel noonu ay pompe ak yu mel noonu ay tëb ay corde su ma pare bu ñu dugalaat ma suma cellule midi dinaa toog ci cellule bi midi xam nga nga nekk ci kaso kaso du amul climatiseur amul yu neex yooyu amul dinaa fa toog midi ba ñaari waxtu ci ngoon di ñàkk rek damay suer moo tax ma ne man maigriruma j'ai fondu midi su jotee su ma añ su ñëwee dama koy bokk ak ñëpp parce que foofu nit ñi duñu seen añ du dugg midi seen añ buy ñëw midi guddi lay dugg moom la ñuy reeree donc kaso bi man ak Khalifa Sall rek la suñu añ di dugg midi donc ñun dañuy añ midi. kañ ñu ngi leen doon beral loxo parce que bu fekkee ñee seen añ guddi lañ ciy jot. parce que yéen midi ngeen ciy jot. kaso bi lu fa am ci ay doomu aadama ëpp na 2000 personnes ci kaso bi di nga gis benn nekk. lu fa am ci néeg bi ëpp na deux cent personnes te néeg bi ëppul saal bi di nga gis nit bu nekk ci kaso bi mën na toog juróom weer juróom benn juróom ñaari weer du am place fu muy tëdd day toog wala taxaw loolu yëpp mi ngi rëbës moo tax euh, na nu ñu xool lan la ñu mën a def ba jàppale administration pénitentiaire liggéey bi gën a yomb ci ñoom mais jàppale bi dafa yomb jàppale bi mooy lan mooy ñu xoolaat budget administration pénitentiaire mooy amit administration pénitentiaire ñu tabax la ñu tabaxal leen ay établissement pénitentiaire diñ de son nom suufi ngi fi ay taxaw di ne non du tabax kaso suma ma tabaxee kaso lii mais loolu ay waxu ay waxu saret ay waxtaanu saret la parce que ce n'est pas normal ñooñu tey ñu nga xam ne ñoom ñoo am tey le pouvoir de décider ñu décider parce que soi-disant suñu tabaxee kaso ñoom ñooy dem kaso dama ne bés bu ñu leen dugalee rëbës dinañ xam est-ce qu'il devait décider ou pas